aaye ba daanu na jeex na takk euh, doomu Sénégal bi nga xam ni euh, mooy Sadio maana léegi nii la ko Bayern euh, daal di publier ci site bi nga xam ne mooy site interne internet bi nga xam ne mooy Bayern Munich la mu yëkk ci kàddu déggoo na nag Sadio Mané fi mu toll nii contrat ba ma nga nekk 40 millions d'euros 35 millions d'euros moom la ni fay gone Liverpool 5 millions d'euros yu bonus la maanaam bu Sadio Mané coppatee lu mel ni ay championnat wala la nga xam ni euh, moo nekk euh, ligue de champion cinq millions d'euros euh, bonus ya ca la kon fii may wax ak yow jeex na tàkk doomu Sénégal bi moo gonay Bayern yi déggoonoon Sadio maana day jóge Liverpool contrat ba nag ñetti at yoo xam ne sëngam Euh, Sadio Mané dina ko def fële nga xam ni mooy Bayern la ñetti at yoo xam ne lanu ko fay ñaanal ñun waa Aladji Malick TV bi mu ay tawfeex ak ay euh, bii ak ay trophée yoo xam ne yu baree bari la ndax doomu euh, Bambali bi football fi mu ti toll ci àdduna wala ngal kàpp la mu mérito mooy jóge Liverpool avancé doxaat beneen jéego beneen jéego boobu ma ngi koy seqee ca ganoy na ya nga xam ne léegi nii jeex na tàkk